auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim chadli lisaani nawir janaani safi amaani wasid baraay mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara bu baax di jiital ci nuyoo bi kilifa gu mag gi Cheikh Amadou Muntax mu guddal fanam te wéral ko ba naa li mu naa lëggeel Sëñ Tuubaa yëpp mu àggale ko te ñu ànd ko ak moom di nuyu mbokki taalibe yi ñu fekk ci barab bu tàdd bi di nuyu itam sunu jëwriñ yi nga xamante ne ñoo féete ci daara Moukhaddamatoul ma ci ndigalu sëriñ Afiya bu saale imaam buñ ci tuddee sëriñ Ablaye Diop mi nga xam ne moo fi teewal kilifa yi daara Moukhaddamatoul Khidma yëpp ak sëñ Cheikh Abdou ak sëñ Mori Thiam ak sëriñ Saalix Baye Sall Ñang di nuyu itam sëñ Jili Bousso moom itam di nuyu bokk yi nga xamante ni ñoo ñëw tey ànd ak liggéey bi nga xam ne liggéey bu tedd bu màgg la boo xam ne liggéey bu ñor sëriñ bi la ñu ngi leen di dalal bu baax xam naa bu sëñ Ablaay jëlee kàddu dana gën a leeral mboolem turu li ni nga xamante ni ñoo teew ci barab bu tedd bi fas yéene ànd ak waa Moukhaddamatoul Khidma liggéey bi nga xam ne waxtu wu nekk amul waxtu amul bis jamono bu nekk ñu ngi koy amal ci barabu tedd bi xam naa bu sëñ Abdoulaye jëlee kàddu dana gën a leeral nasinu mbooloo mi ak jëwriñ yi nga xamante ni uh, ay kuréel yu wuute lañ uh, di bàyyi ko ay gox yu fasantikoo ci biir dëkk bi am na ci ñoo xam ne sax di bàyyi ko yeneen i gox yoo xam ne uh, dana génn Tuuba sëñ Ablaye bu jëlee kàddu dana leeral turu jëwrin yooyu ak nan yan bunt lañ jaar bay mën a agsi ci mbooloo mi ak wàllu administration bi nga xam ne jëmmi daaram Xadamatul ma da koy doxee ak itam kuy ñëw ci jàkk wala nga ñëw ci barab bu mel nii yan teggin nga fi war a duggee kon mbokk yi suñuy kàddu dañ koy tënk rek ci ubbil sëñ Ablaye mu leeral doxinu daaram Xadamatul Xidma yëpp daaram Xadamatul Xidma nag doxin wi weesuwul doxinu Sëñ Tuubaa weesuwul doxinu lislaam ndax liggéeyam yëpp mi ngi jëm ci diggante barab bu tàdd bi barab bi njëkk ak bàqewan njëkk mooy setuk barab bi xam naa ne sax ñi ngi fàttali ni sëñ Abdoulaye bi nga xam ne moo war a jël dëgg-dëgg kàddu gi eh, ci secrétariat bi ñu nekk ci bopp bi ci la bokk muy nosub liggéey bi nga xamante ni ku ne xam na liggéey bi ku ku ku fi nekk di ko di di ko dund wala nga di ko xool ci biti di ko jaarale ci gisukaay yi da ngay xam ne liggéey bu ñu nos la ña koy nos nag di ko tëgg ba ba ba lépp aw ci yoon moom mii ña ko jiite ci la bokk kon su jëlee kàddu dana gën a leeral loolu xëy na fi ñuy jëmale suñu kàddu yi gàtt rek mooy euh, barab bi nit mën naa dëkk ci peggu jumaa ji ay at te du xam ne liggéey bu mel nii mi ngi fi am nit sori ko lool sunu borom defal ko ci feex mu mel ne ñi nga xam ne dañuy ñëw ci bu tedd bi dafa liggéeyal sëriñ bi sëriñ bi moo leen di tànnal boppam kon ku Sëñ Tuubaa defal tawféex nga uh, sa xel daj ko ne la wóor ni sëriñ bi moo moo la tànnal boppam nangoo nañ ci sëñ Moustapha mu sëñ du Xaadir mu wax ne dama jàppatul mag mi ko wax ci kilifa yi Mbusoobe yi la bokk mu ne ko damay dangay ñaari dangay am doom bëgg mu am ak taalibe da léeg ngay am xarit bëgg mu am ak taalibe yéene ko ko te du mën a nekk waaye dem naa ba xam ne dëgg dëgg dëgg ndek ak taalibe ki ko ki ko ki ko ki ko ki ko amal ki ko moomal boppam muy Sëñ Tuubaa moo koy moo mooy xool murit bu ko soob mu def ci moom acteur bi kon loolu day duggaat ci biir li barab bi képp ku fi ñëw di liggéey nanga nga sañawaat ni Sëñ Tuubaa la tànn boole la ci ñi koy liggéeyal damay faral di wax ni itam liggéey bu wóor la bu mat a bàyyi xel ndax liggéey baa ngi nii sëñ baa ngi nii moom ki ñu koy liggéeyal mu ngi nii di jàkkaarlook ñun kon liggéey bu dal xel la boo xam li ma li may wax nii am na ñoo xam ne seeni kër maanaam maanaam zéro mètre la ak jumaa ji bu ñu génnee rek dañuy tàbbi ci biir barab bi te xamuñu ni lu mel ni ñu ngi ko fi taxawal kon sëriñ bee leen tànnul rek mu mel ne euh, léeg-léeg tam nit mën a nit bu xëyee li muy njëkk a def mooy néegam benn moo xam mu defar ko wala soxnaam defar ko wala bëggul lenn luy taq ci jëmmam wala ya ci aju te mbooleem lu ñuy setal ci suñuy jëmm ak suñuy dëkkuwaay setal barab bi moo ko gën yàlla waxtu wu nekk jamono bu nekk te ku ne xam na ni sax rawatina waxtu bii ñu ñu ñu ñu agsi dëgg-dëgg ni jamono ji di soppikoo ci wàllu poussière ak yi ci aju ba ni ñuy génne nawet bi daanaka waxtu wu nekk barab bi da koy yittewoo te kenn ku nekk ci ñun xam ni euh, sunu yaakaar yi tey ak ëllëg bi ñu ko noppee gis fii la nekk kon fu ñuy setal fii moo ci gën a yàlla kon ku sunu borom defal feex nga bokk ci da da ngay xam ne lii ndimbalu yàlla nga ci am ak ndimbalu sëriñ bi. kon yéen ñi nga xam ne suñu borom da leen a defal tawféex ngeen dem ba xalaat ne da ngeen a war a ñëw ànd ak ñun liggéey bi daayira bi mu ngi leen di ubbil bunt yëpp ci turu kilifa yi daayira bi yëpp di leen wax ni itam tawféex la ju ju ju am murid di am rek man cee bokk waaye ay pexe mayiwu gudd loxo tam mayiwu relation mayiwu ko tawféexu suñ ci wàll nit di am rek ba mën a xam ne euh, nit mën naa ñëw setal fi benn mètre maa ngi fàttaliku lu yàgg loo xam ne Serigne Saliou di ko wax sama waajur jóge Ndakaaru andil ko ay setalukaay mu ne ko benn mètre bu fi ni setal rek setal na ko ci kërug àjjanaam loolu moom nangoo naa ko ci moom mu wax ko te loolu yàgg na boobu ay at yu new laa am su ma juumul 2003 lay doon du soree demul suñu xarim bu so kon loolu tawfeex la nit di am rawatina dëkk bi nag la waxoon laa déggoon mu wax ko waaye ñëw setal ko nag ci biir barab bu tedd bi kon ñi nga xam ne dañ koo dëgmal suñu borom defal leen tawfeex daayira bi gàttandu leen fas yéene koo ànd ak am ngeen tawfeex ju réy li ci dolli ko rek mooy ñu fonk ko te bañ koo yemaleek dara da xam ni bu ñu ko tuddee sa xel fi muy njëkk dem mooy jumaa ji foo mën a nekk ci àddina bu ne la Touba rek sa xel fi muy njëkk dem mooy jumaa yi bu ko weesoo mooy fi sëñ bi nag waaye jàkka nag ku ne xam ne jumaa wala teggi am ñun ñëpp xam nañ ko sëñ Abdoulaye dina ñëw waaye nag fii day nekk jumaa plus jumaa plus Cheikh du bokk du bokk du bokk ak yeneen i donte jullikaay mu jullikaay la rek waaye fii nag dafa sunu yaakaar yi tey ëllëg dafay nekk mu sëñ Touba kon ñu fonk ko bu baax te xam ni li ma ko waxee léegi ay pexe taxul nit bokk ci tawféexu maanaam tawféexu suñu borom la nit di am man cee bokk kon ci biir jotaay bi tey ñu yeesal suñu jaayante suñu diggante ak sëriñ bi te am pas-pas maanaam jaayante wala yeesal ko waxtu wu nekk saa yoo ko defee la ca nekkoon ci ay rëcc rëcc wala ay njuum yoo doon def day mel ne da ko day beesaat taq taq taq nga mel day mel ne ngi doon tàmbaliwaat tey kon suñu tàmbalik tey gi nañ ci yeesal suñu jaayante suñu diggante ak sëriñ bi amaat pas-pasu liggéeyal ko te sëriñ bi nangul ñu liggéey bi fii nag moom mel na ni ku fi ñëw sëñ bi tànn na la moom la la la la cay nekkaat tawfeex mooy sëriñ bi nangul la ko te lu liggéey bi gën a dem moom mu mu xiiraat la ci boppam waaye képp ku fi tàbbi moom moom sëriñ bi nangul na la ba noppi la ci des nag moom moom moom mu xiiraat la ci boppam te li ngay def lépp mu nangu ko sëñ Abdoulaye ñu ngi jéggalu bu baax dafa mel ni am ay gan yu mel ni sa xol day sedd ndax waxtu wu nekk da ngay xam ne. li li sëriñ bi ñaanoon ak lim lëggeel boromam boromam nangul na ko ko ndax li ëpp ci jotaay bi ñi ci am 40 ans bëriwuñ ñi ko ci am ñu néew lañ kon te liggéey bi yoon wi ci loxo yi rek lay mujj te yaakaar naa UNESCO suma juumu dafa rapport bi mujjee def ñett yi bu mujj bi duma ko tudd ndax yiteelul barab bi waaye benn bi dafa wax ni langue wolof dina sori lool ci àddina ndax dafa yomb waaye beneen bi ci des mooy mbirum Sëñ Tuubaa yaakaar nañ ni dana daj àddina kàpp ndax li koy def mooy li ëpp ci ñu topp Sëñ Tuubaa ay gone lañ te niñ koy toppee amuñu ci xalaat buñ leen digalee ñu def buñ leen ayee ñu bàyyi daan ni nos nosu kilifteef ci Sëñ Tuubaa lañ ko gis ci jamono ji li koy li koy gàllankoor nag ci lañ war a def yitte ba ba loolu Sëñ bëgg bañ mooy lii kenn ci ay kilifa yi ci Afrique waxoon ne nañu soppi nit ñi bañ bañ doon jullit mun leen mënuma koo def waaye danaa leen def ay mauvaise musulman ay jullit yoo xam ne day taxawal rek duñu xam dara waaye ñun nañ nañ fexe ba bokk ci ñi nga xam ne suñ Tuubaa da leen di tiitaroo bañ a nekk ay mauvaise euh, murit ñu ngi jégalu bu baax seen bay macha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngi nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo toog ci barab bi di leen ziar bu baax a baax di ci jiital cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ak mbooleem njabootuk cheikhul xadim bi yëpp di sof suñuy kàddu rek ci sëriñ xaadim fii mu daaneele di kàddu yu am solo yoo xam ne ñun ñëpp ku ci nekk yëgaat nga e, lu daw ci sa yaram léegi ci kàddoom yu am solo yi nga xam ne moom la yëkkati muy kàddu yu soññee yoo xam ne ñun ñëpp war nañ koo bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax a baax e, di yëkkati sama kàddu nag ci turu Serigne Afia mi nga xam ne mooy njiitul daayira Muxaddamatul Xidma ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi te tey ay seeni ndaw teewal leen fii euh, ki doon wax léegi mooy Serigne Xaarim Kanji bokk ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci commission organisation yor lépp lu ñuy organiser ci biir daayira Muxaddamatul Xidma ànd ko ak seen jëwriñ ji Serigne Abdul Xaadir Bousso sëñ Cheikh Abdou Bousso moom itam mbooleem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy def ci cellules yi ñëw ci jumaa ji moom ci kilifa yi leen di orienté ci la bokk ànd ko ak Serigne Mori Thiam mii moom itam bokk ci fànn googu ci wàllu organisation fekk si fi Serigne Saliou Niang nga xam ne moom coordination bi lépp lu aju ci matériel bu ñuy jëfandikoo ci biir jumaa ji moom lañ ko dénk euh, Serigne Abdoul Khadir Bousso mii nga xam ne moom itam moo yor lépp lu aju ci wàllu communication ba ci jumtukaayu xarale yi nga xam ne mooy tasaare xabaar ci euh, daayira Muxaddamatul Xidma ci loxoom la nekk muy euh, site internet bi ak télévision en ligne bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ngir tasaare liggéey yi fi nekk kon ñu ngi leen di nuyu bu baax ci turu Serigne Afia moomu nga xam ne mooy njiitu daayira Muxaddamatul Xidma nuyoo bi gën a kawe di am mbégte ci daje gi ñu daje ak yéen ci barab bu tedd bii ak jëf jure ji yi nga xam ne moo ñu boole tey muy jëfi Pastef di liggéey Serigne Touba bu dara raxul ñu ko Serigne Khadim waxee léegi euh, mu ñu ngeen fekk si fi nag ay mbooloo yoo xam ne dibeer ju jot baaxoon nañ ñoom di ñëw ci liggéey bi ndax daayira Muxaddamatul Xidma liggéey bi dafay yaatu yaatu goo xam ne euh, ñëpp xaj nañ ci taalibi yëpp xaj nañ ci ndax barab biñ nekk dañ fee nekk waaye dañ fi nekkal ñeneen ñi fi mënta nekk waaye képp koo xam ne jotam may na ko mu nekk fi rek mën naa ñëw ànd kook ñun ndax fi ñu nekk lépp ñëpp lu nekku ku ne ngi ci kon moo tax it ñu di ko yaatal ba fu waay mën a jóge rek te am pas-pas ak yéene yi mën a bi ci liggéey bi ñu mën koo ànd ak moom euh, ndax dibéer ju jot waa daayira wakkaana xaqan daanañ doon na ñëw di def ci euh, bokk ci liggéey bi ànd kook shababatul xidma ak daayira muxaddamatul xidma bee féete ndindi kon bu tey yàlla defee tawfiq Euh, waa fondation sopp Serigne Saliou ñëw ñoom itam ñeenteel si leen ci liggéey bi fekk si leen ci liggéey bi loolu tawféex ju rëy rëy rëy lay doon noonu lañ ko séddalee ci semaine bi li ko dalee altine ba dimaas bu ci nekk am na kuréel yoo xam ne ci dëkk bi danañ ñëw ànd ak ñun liggéey bi ngir yaatuwaayu liggéey bi yaakaar naa tey yéen ñëpp ci teg seen bët jumaa ji macha allah dayo bi euh, kii na tey liggéey bi am na fi moom ku ñëw da nga xam ne liggéey dëgg am na fi kon mel na ne ñëpp xaj nañ ci fondation sopp Serigne Saliou nag bu ñëwee ci biir daa liggéeyu daara Moukhaddamatoul Khidma tab bi ci dafa bari ay luñ ci mën a jàngate jàngat yu baree bari Serigne Khadim tudd du junj na junj na ci léegi eh, ndawi murit yoo xam ne dañoo futtee ko bëgg a liggéeyal Serigne waaye am na yeneen mbir yu yoo xam ne waras na ko cee mën a jàngat dafa bokk ci eh, mën nañ ne daara Moukhaddamatoul Khidma dafa sosu ci loxoy Serigne Saliou ndax 1994 bi ñu seetloo ne daal jumaa ji war naa am taxawaay beneen bu bokkut ak bi ci ne ndax 1963 bi mu ubbee ci 7 juin 1963 sëñ Fallou dafa laajoon mbooleem kër doomi sëñ Touba ku ci nekk mu yabal kenn ñu indi ku boole leen nekk ci jumaa ji ñoom ñu koy taxaw bi ñu demee ba 94 nag ñu gis ne ñooña néew nañ doole ak mag dugg na leen ba te jumaa ji rëy na rëyaay woo xam ne li fi nekk ci liggéey mënatuñ koo taxaw te gannaaw ñun seenu njaboot lañ war nañoo mën a ñëw nag jël relève bi fe wuutu leen ci wet googu ci lañ xalaat xalaat bi dem ci Serigne Saliou euh, gaaral ko ko kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekkoon Serigne Abdoul Moutalib bu soog ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci jumaa ji euh, yal na yàlla yokk seen leer ànd ceeg ñun ñu dem ci Serigne Saliou bi ñu demee moo jël ci loxoom bu tedd bi ci enveloppe bi ñu defoon addiyee doon ko ko ziyaare ci la wëlbati bind ne nañ tuddee daayira bi mu muqaddamatul xidma kon moom moo ko tudd sëriñ Saliou moo ko tudd waaye teg toftal ci kàddu yu am solo mooy ne liggéey bii de liggéey bu leen fi doon xaar la bu leen fi sëriñ bi dencaloon la tey it da ngeen ci dajeeg lu kawe seen jot loolu loolu la ca wax euh, daayira Muxaddamatul ma jóge fa am bay du rëy woow nekk ci mat la Matlabul Fawzayni wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabbitanhu bil haadil wa fi yow sama borom maa ngi lay ñaan jamono ju ne nga nga wutal ma ay defarkat yoo xam ne ñooy nekk ci sama dëkk bii di ma ko defaral te na nga leen dëgëral na nga leen saxal waaw na leen dëgëral loolu suñ suñ tubaa moo ko ñaan te xam nañ ñaanuk sëriñ bi moom day gis nangu gi ba noppi doo ko ñaan kon bu ñu demee ba jamono dox fondation sëpp sëriñ saaliw ñëw fekk suñu ci liggéey bi di ay saalihoon ay dégg nga ay ay ay saalihoon ay saalihaat wal tudd xalil mustajaxee ñëw fee sëriñ saaliwu moom itam dajeeg moom mu joxe ndigal li kon dafay mel ni sëñ saaliw moo jël ak njabootam ne dem leen ca lee nga xam ne dige woon naa ci ne ku ci ku ci da ngeen ci dajeeg lu kawe seen njortu da ngeen ci dajeeg ngërëmul sëñ Touba ñëw leen ndax ngërëm loolu laa leen sàkkul kon jàngat boobu mënees ne ko cee jàngat te loolu mooy cosaanul jumaa ji jumaay Touba ji bi ko suñu borom joxee sëriñ bi nee na bi mu bi sëriñ bi bi ko bi ko suñu borom joxee nee na malaaka yi ñëw nañ ne ko dañoo bëggoon nga wax noo bëgg ñu defal la ko nee na mu jox leen ngànt nee na bi ñu demee jinde ñëw ne ko dañoo bëgg ñu ñu ñu yoral la liggéey ñu liggéeyal la jumaa ji soo bëggee ñu defal la ko sax or nee na mu mu ne leen damaa amuk njaboot te damaa bëgg ñu jariñu damaa amuk njaboot damaa bëgg ñu jariñu ci la joxe woon ndigal ci ne na ku nekk génne ñaar fukk ak juróom-ñett def ko njotu boppam def ko ci jumaa ji ngir jumaa ji taxaw sëñ bi mooy wax loolu 1925 1925 ci nekkam fii ci njaareem waaw daan nag képp ku ci feeñ da nga feeñ ba faw waaye ku ci nëbb da nga nëbb ba faw loolu sëriñ bi moo ko wax kon nag lii sëriñ Xaadim wax ne liggéey ci jumaa ji du du ay pexe du ay loxo bu gudd pexe mayewu ko tànnuk sëriñ bee day lu wér ku sëriñ bi tànnut fii doo fi mën a liggéey ku sa alal nanguwut doo ko ci mën a def loolu moom lu wér la kon nag war nañoo sant bu baax a baax sant yàlla bu baax a baax sant sëriñ tubaab mi nga xam ne defal defal nañu tawféex ñu mën a liggéey ci barab bu tedd bii tey ñaan nag lépp luñ ci liggéey mu nangul ñu ko te it lépp luñ ko yen attan na ko nañ ko yen lu lu ne nañ ko yen lu ne ndax danañ ci jariñu suñu njaboot di ci jariñu suñuy sëtëki sëtaat di ci jariñu ndax mboolem ñi liggéeyoon ci jumaa ji ba léegi histoire mi ngi leen di tudd istuwaar mi ngi leen di tudd kon nag képp ku yàlla defal tawféex nga mën a ñëw di ci liggéey na nga na nga na nga am pas-pas bu sell ci ne li ngay liggéey loo ko yen dina ko attan loo ko yen dina ko attan nag lay tax nga mën ko mooy pas-pas bu sell ixlaas ju mat sëkk liggéey bu ixlaas joo xam ne dara raxu ko loolu mooy li ci li ci li ci li ci ëpp solo kon soññe bi nga xam ne sëriñ Xaadim def na ko yaakaar naa ne soññe bu am solo la boo xam ne ñun ñëpp yëg nañ ne yëg nañ ne am na lu beesaat ci suñu pas-pas am na lu beesaat ci suñu liggéeyal sëriñ bi ab murit dëgg dëgg dëgg li yëngal deretam mooy mu liggéeyal sëriñ Touba mu liggéeyal sëriñ Touba liggéey bu ñu nangu da koy yëg ci xolam da koy yëg ci xolam ndax ku ci nekk li ngay def fii ci njàmbaar ci doole ci kattan ci ay déplacement boo ko boo bu doon ci beneen barab nga koy doo ko mën bu doon ci feneen nga koy defee doo ko man fii rek nga koy mane loolu moom ñun ñii ñëpp am nañ ci firnde lu leer a leer leer man su ma jógee fii rek su ma génnee jumaa ji rek damay daal di màggat dara dootuma ko man dara dootuma ko man te boo nekkee ci jumaa ji doo sonn doo doo doo tay loolu nag lu sëriñ bi roof la kon nag nañ ko bàyyi xel bu baax a baax gën a bàyyi xel barab bi ni ko suñ xaadim waxee mooy jumaa moom am na ay teggin yu ñu fi war a nekkee ay teggin yu fi war a nekkee ci ak dal ci ak sàmmonteeg barab bi xam ne néegub yàlla la ñu nekk nañ bàyyi xel ne suñu borom lañ jàkkaar teggin yi ñu ko war a jox ci bu ñuy liggéey jox ko positif bu mat sëkk ànd ak ixlaas tey di wàññandiku wax joo xamante ni xëy na amul njariñ wax moo mënta ñàkk wax ju ci liggéey beeg yooyu moo mënta ñàkk waaye wax joo xam ne xëy na amul njariñ def positif ci liggéey bi ba mu àgg loolu moom jàpp naa ne di ko di ko wax ñoo xam ne kuréelu euh, gu ñuy tudd di tudd sëñ Saliou sax xanaa ab soññee la waaye waaye jàpp naa ne moom ñoom ñaga ca woon ndax euh, bi may nuyoog ñoom rek wax nañ ma ne diw moo yor commission bi nga xam ne moo aju ci wàllu discipline loolu nag mbooloo moom am ñu ngay bàyyi xel bu baax a baax ay teggin kon di leen ko wax fàttali suñu bopp la di leen ko fàttali rek waaye doonut loo xam ne xëy na luñ mën a luñ mën a luñ mën a euh, teg baaraam ci ne lu kii la bu ko defee tam ni ko suñu xaadim waxee mooy bi jumaa amee ay teggin yu ñu mën a sàmmoonteeg moom itam euh, ñu xam ne jumaa joo xam ne la borom mi ñuy liggéeyal moom mi ngi nii duñu dégg mi ngi nii kon jumaa ju ànd ak leneen la juma plus Cheikhul Khadim la ni mu ko waxee kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax di am ay teggin am ak dal amit pastéef ci liggéey bi fexe itam wutal ko ay waxtu yoo xamante ni lu liggéey bi bari bari nañ fexe ba muy tàmbali waxtu sàngam di jeex waxtu sàngam loolu itam da ciy am solo ndax liggéey bi bu fekkee tënkuñ ko ci noonu rek day mujj day metti di gàllankoor wala mu yàq leneen te liggéey bi Serigne Touba daa war di defar waaye warut a yàq loolu itam ñu ngi koy soññee bu baax a baax a baax. ci xam ne daal daayira Muxaddamatul Xidma ba mu sosoo 94 ba léegi ñun membre boo xam ne da ñëw ne damaa bëgg a bindu sax dañuy def ci yow gëstu ba xam yow koo doon ak ci looy yëngu foo bàyyi koog yu mel noonu. ndax itam barab bi daa sensible sensible goo xam ne du ku nit jóge fële rek ñëw ndax dafa am lu mu laaj barab bu barab euh, néegu bi yàlla ku fay nekk war ngaa am tuuti ci xam-xam lu mu néew-néew lu aju ci loola war ngaa am tuuti ci comportement. ci comportement boo xam ne bu fay mën a nekk la ndax ku ne fii ñëw te ñu ne lañ fi fekk waaw ñu ne lañ fi fekk tey bu ay gan jóge feneen ñëw fekk ñu fiy liggéey yore fi beneen comportement bu bokkut ak bi ñu fi war a yore ñoom bu ñu demee la ñuy nettali ñun du ñu ko xam dañ naan waa Touba rek du ñu xam nu mu demee kon nag ñun ñi fi nekk war nañoo bàyyi xel loolu bu baax a baax gën a joxaat gëdd barab bi gën a joxaat cir barab bi gën a mën a góorgóorluwaat bu baax a baax bu ko defee daari Moukhaddamatoul Khidma noonu la tënkoo nga xam ne dañ ko structuré maanaam mu am ay commission ni ko ñëpp xamee am na ñu yor wàllu organisation Serigne Fallou Mbacke moo ko jiite. moo jiite commission organisation lépp lu ñu organiser ci daayira bi moom mooy moo ci nekk jëwriñ am na ay sous commission yu nekk ci biir. am na commission boo xam ne commission culturelle la ñoo yor lépp lu aju ci wàllu xam-xam xam naa da ngeen di gis waxtaan yi ñu fiy def ak ay yu mel noonu ñoom ñoo yor loolu Serigne Abdoul Ahad Bousso Thierno moom moo nekk ci bopp bi. am commission boo xamante ni moom la ñuy wax commission sociale et relations extérieures. moom moo yor lépp lu aju ci wàllu social ak lu aju ci wàllu bitim réew ba ci sociale sanitaire yi santé yi moom moo ko yore sëriñ Abdou Lahad Bousso maam Asta moom moo ko jiite ak ñi mu ko àndal waaw am itam boo xamante ni commission communication la lépp loo xam ne lu daayira bi di def la mu war a tasaaroo wala génn nit ñi mën koo jariñoo moo xam ci ay waxtaan wala lu mu mën a doon ñoom itam am nañ boo xamante ni sëriñ maxtaankat moo nekk ca bopp ba sëriñ Abdou Khadir Bousso mii moom itam moo yor site internet beeg lépp lu ci aju ñoom ñoo yor liggéey boobu am itam secrétariat administratif boo xam ne ñoom ñoo yor lépp lu aju ci wàllu bureau bi membre bii bindoog lépp lu aju ci wàllu mbind ñoom ñoo ko yore suñu ab ab Abdou bu so aafiya moom suñu aafiya moom moo moo nekk ca bopp ba moo ngi ko àndal. ko defee itam am secrétariat boo xamante ni ginnaaw sëriñ Afia mi njiit li ñoom ñooy coordonné mboolem lu aju ci liggéey bi sëñ Abdoul Ahad Bousso Moutalib sëñ Abdoul Ahad Bousso Muxtaar ak man mii di wax ak yéen ñun ñoo féete ci fa wàllu googu. loolu itam ngir leeral leen ko mooy ginnaaw bi ngeen ñëwee ànd ak ñun liggéey bi bis ni ki tey ñu nag yéen ñoo yem képp ci daayira bi waaw ñoo yem képp ci daayira bi amul lenn loo xamante ni warati na leen cee ump ndax it ñun waar wi ñu nekk képp ku ñëw ba sóobu ci rek jàpp nañ ne ñu ak yow ñoo ñoo ñoo ci yam amatuñ lu ci nëbb ni ma ko waxee ci njëlbeen bi barab bi day barab boo xam ne du lenn kenn lépp ñëpp lu nekku ku ne ngi ci kon nag ñun war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax moo tax daayira Muxaddamatul Xidma ubbi doxin waaw kon ñu ngi jaajëfal mbooleem ñi nga xamante ni tey ñoo fekk si bu ko defee kon ñu ngi jaajëfal mbooleem mbooloo yi nga xamante ni ñu fekk si tey jii ci ci liggéey bi te ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi muy ñetti mbooloo yoo xam ne baaxoo woon nañ di dibéer ju jot ñoom ñu ñëw fi waaye tey jii benn meneen mbooloo mii nga xam ne tey ñoom lañuy dalal jàmm ngir fas yéene ànd ak ñoom liggéey bi ñoom itam ñëw fekk si liggéey bi di waa fédération Sopp Serigne Saliou ñu ngi leen di dalal jàmm bu baax a baax di leen tatagal di leen yaatal di ñaan liggéey bi euh, ñu daje ci ak ngërëmul Serigne Touba ndax moom rek la ñuy sàkku moom rek la ñuy sàkku bu ko defee mu xaddamatul xidma itam ay liggéey yi nga xam ne moom la chargé woo liggéey yu yaatu la ndax 1994 bi mu sosoo li doonoon yitteem mooy fexe ba jumaa ji di set ajjuma bu ñu xëyee ñëw setal jumaa ji génn muket yi fëgg ko lalaat ko taal cuuraay yi fexe ba jumaa ji am xet gu neex bu mi di jotee ñu ubbi bunt yi jubbanti sàppe yi fexe ba orienté soxna yi ba jaxasoo du am loolu moo doonoon liggéey bi ci lañ nekk 94 ba 97 ci la sëñ Saliou joxe ndigal ci ne nañ gën a mën a taxawu jumaa ji ak pénc mi boole ci julli iid yi boole ci itam bayaan yi nga xam ne moom la ñuy def nga xam ne sëriñ bi moom moo joxewaat ndigal ndax murit baaxoowut di di di laaji ndigal waaye day xaar ñu jox ko ndigal laa tafaalu shay'an bi gayri izni fal iznu shartun fii qabuli sha'ni loolu la ñu sëñ bi jàngal moo tax it sëñ bi moo ñu woowaat ñu ndigalul nii ngeen di taxawoo ajjuma yi na ngeen ci boole julli yi ba mu yàgg mu woote waat joxe ndigal ne damaa bëgg lii wër penc mi itam ngeen boole ko ci liggéey bi lépp loo xam ne xeetum njaay laa ak yalwaan na ngeen fexe ba mu jógee ci penc mi ak li ko wër te ngeen na ngeen ko tàmbalee ci sama ëtt bii ndax fii laay toog ci sama mi kat di ko gis te dara neexuma ci loolu noonu la ko waxoon keroog muy yor yor googu mu wootee fii ñu dem wuy ji ko loolu mu mu dolli ko ci liggéey bi di gën a yaatu di gën a yaatu ba ci ay jëmmi jamono ci at yu mujj yi 2005 jëm 2006 ci la joxe ndigalul ñuy taxawu euh, armeel yi boole ko ci ne nañ fexe ba armeel yi daal ñu koy saytu ñu ñu fiy denc ñu xam leen fu ñu bàyyi ko ba benn jafe-jafe dootul am loolu moo tax daayira Moukhaddamatoul Khidma yor itam gestion euh, cimetière yu Touba bii nekk ci jumaa ji ak bële nekk ci bàq ya ginnaaw bi nga xamante ni ubbi nañ ko ci ndigalul Serigne Sidi Mokhtar ci la joxe même 2005 itam ci la joxe ndigalul nag ñuy taxaw itam koor gi ci wàllu conférence yi ñu fiy def ak ndog yi ñu fiy def yooyu yëpp liggéey la yoo xamante ni dafa dab si daayira muxaddamatul xidma am na yeneen taxawaay yoo xamante ni ay événementiel la maanaam xew-xew yi xew lu mel ne màggal Touba daayira muxaddamatul xidma am na taxawaay bu am solo bu ci am muy euh, gan ñi nga xamante ni ñooy jógee ci tarixa yi ci biir réew mi ñoom ñëpp daayira muxaddamatul xidma moo leen di teeru moo leen di dalal ci résidence yi nga xam ne mooy résidence euh, euh, Cheikhul Khadim bii nekk ci jumaa ji ak bële nekk Daarul Manaan di ay liggéey yoo xam ne yëpp mi ngi aju ci loosu daayira Muxaddamatul ma plus nag fekk si nag jumaa ji nga xam ne mooy cosaan kon xam nga liggéey boobu ma lim mbooloo mu bari la laaj ay moyens yu bari la laaj kon moo tax itam nag ñëpp xaj nañ ci ñëpp xaj nañ ci daayira Muxaddamatul Xidma doonut koo xam ne dafay nekk ci barab rek naa ah, barab bii kat man maa fi maa fi nekk maa koy yore euh, du bëgg keneen fiiraange gi moom mënta mën mën naa am fu ne waaye fii moom wuru wuru fee mën a am ndax jumaa ji moom ñëpp ko bokk kon nag ñu ngi leen ci dalal jàmm bu baax a baax di leen ci euh, jaajëfal ci ñëw gi waaye tam nag di leen ci soññ ci ne liggéey baa ngi nii nii ma ko leerale nii rek la demee noonu ñu soxlaa itam nag ay ndaw yu góor yoo xam dañuy taxawu liggéey bi noonu la daari Moukhaddamatoul Khidma di soxlaa ay soxna ndax soxna yi daari Moukhaddamatoul Khidma am na soxna yoo xam ne li ma ko waxee liggéey yi nga xam ne moom la ñuy am te jigéen ñi war cee féetewoo ci wàllu julli geeg yooyu ñoom ñoo leen di taxaw ndax du bëgg jaxasoo gi di am ci ay góor di fa dem di leen taxaw waaye soxna yi ñooy dem ci soxna yi di leen taxaw yeneen liggéey yi ñu am yëpp itam ñoom itam li nga xam ne moom la ci soxna yi war a def ñoo ko ci def soxna yi nag yaakaar naa ñoom itam ñu am histoire lañ cosaan lañ ci yoon wi ndax jëmmi jumaa ji tabaxub jumaa ji rek béton ba tooy na xëy na ay ndaw lañ waaye ku ko dégg dana xam ne ñi ci mënoon mooy soxna yi daanañ yenoo ay pa ay ay gambi béton yoo xamante ni fu sore sore di dox ay kilomètres wala ay xeer ca ndokk ay soxna di ko fay yenoo di ko indi fii ci jumaa ji kon nag nañ xam ne liggéey bii liggéey la boo xamante ni euh, amul góor amul jigéen ñëpp ñëpp ko aajowoo kon nañ gën a yokkaat Pastef bi bu baax a baax gën a góorgóorluwaat fexe ba ni ko benn cellule waxe woon rek ñoom daal bu ñu bañee coow li bari ci liggéey bi ñoom dañuy fexe ba bu ñuy liggéey ñoom ñu joxe ay dog ne ku nekk daal tey na def junni salaatu na bi ku ne si wa àgg si junni salaatu ala nabi doo wax leneen lu ajuwut ci loola lu dul farata kon loolu itam nañ ko bàyyi xel bu baax a baax jéem a góorgóorluwaat jéem a defaat positif kon ñi ngi jaajëfal ñi nga xamante ni mooy waa daayira wakkaan xaqan ñi nga xam ne euh, jëwriñ sëriñ Massamba Diop mm, ca Ndakaaru moom moo ko jiite sëriñ Abdul Abdoul Baaxi Diagne jëwriñ moom itam ak sëriñ Pape Diop sëriñ fàllu Galas Ndiaye ak soxna yi nga xamante ni ñoom la ñu àndal muy soxna Maam Jaara Ñang bu Touba ak soxna Oumy Diaw bu ndakaar ak soxna Jaara Mbay bu ndakaar moom ñoom itam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen nuyu ci turu sëriñ Afia di nuyu itam waa daayiratu euh, shababatul xadim ñoom itam soxna euh, euh, soxna joor soxna soxna Mbène Ndiaye waaw soxna ak soxna maam Diarra Thiam ak soxna Khoudia Silla soxna Fatou Diouf soxna faatu Diop soxna Ndeye Ndiaye ñoom itam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax soxna yi nga xam ne ñoo ànd ak itam waa daayira Wakana Haqqan soxna maam Khady Fall soxna sox so waa Ndindi waa Ndindi daayira Muxaddamatul Xidma bi féete Ndindi soxna Ayda Dieye ak ñi mu àndal ñoom itam ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax wax naa ne ñeenti kuréel yooyu ñoom ñoo féetewoo li nga xam ne bisub dibeer bi muy wakaana xaqan sababatul xidma ak uh, waa daayira Muxaddamatul Xidma bu Ndindi fekk si leen fondation sopp Serigne Saliou ñoom itam ñi ngi leen di nuyu jëwriñ Serigne Modou Kara Sylla ñi ngi lay jaajëfal bu baax ak mbooleem ñi àndal ak jëwriñ sëriñ Aliou Fall jëwriñ Serigne siidi Fall ak jëwriñ Serigne Ousmane Diop jëwriñ sëriñ Pape Moussa Diop ak euh, soxna aadama Fall mi nga xam ne moo féete ci wàllu soxna yi kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen mm, mm, euh, sant bu baax di leen gërëm di soññ suñu bopp di leen gën a soññ ci ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi sëriñ Touba doon naa liggéey sëriñ Touba ba samay morom raw ma nopp du ko mës a dégg loolu mooy liweer kon nag nañ gën a góorgóorlu bu baax gën a yokk pësteef bi waaw nañ gën a góorgóorlu bu baax a baax yokk Pastef bi yokk taxawaay bi ndax kenn deful ci kaw suuf jamono yii lu gën liggéey Sëñ Tuubaa bu ñu demee ba UNESCO di def constat boobu ba di ko boole ci ay rapport am ni ko Sëñ Xaadim waxee loolu wane ne kon ñun jéggi nañ fii yëpp ñu ngi ci niveau international waaw léegi nag loolu nag dana am ay défi yu mu jàkkaar loolu maanaam ay pexe yoo xam ne danañ taxaw ci gàllankoor loolu ndax nag ni fi nooni lislaam yi nekke woon di xeex lislaam nooni nekke fi woon feek Sëriñ Tuubaa jàmmaar moom bëgg gàllankoor yoonu murit donte mënuñu ko ñu itam nañ gëm ne am na ay noon yu taxaw ngir dox suñu digganteeg loolu kon loolu nañ ko lànk lànk gi nag mooy fexe futteeku rek bañ a gestu bañ a déglu kenn dëgg ma liggéeyub sëriñ bi kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal sëriñ Mori mi nga xam ne moom lañu leen booleel sëriñ Mori Thiam dibéer ju jot incha allah moom dana ñëw coordonné liggéey bi kon ñu ngi yëkkati foofu kàddu yi di leen sant bu baax a baax a baax di jégglu ci yàggaayu jataay bi ndax yitte yi bari na te waaye dañ ne woon gannaaw bis bu njëkk bi la faw ñu ñëw dalal leen xamale leen ak daayira bi xamale leen ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo fi teew rek euh, incha allah li ci des nag moom mi ngi ci suñu kanam bu ren dee déwén ku nekk dana xam jëf jim jëf fii lan la yokk ci moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfaat Serigne Saliou ñu ngi siyaare sama way jur yi ma fi fekk yëpp. di siyaar sama mbokki taalibe yi ma àndal góor yàlla yeeg soxna yi di tuub bu baax nag ci kàddu yi ñuy yëkkati ndax wax dëgg neex sëriñ bi waruñu ko fee yëkkati ci seen kanam ndax eh, suñuy way jur ngeen waaye suñu kilifa ngeen tamate ko sëkk ndax wax dëgg neex sëriñ bi ku naan la kaay liggéeyal sëriñ Tuubaa ku la bëgg a dimbali la te ñun moom yaakaar naa daray mbaax nekku ci ñun waaye bu ngeen ñu bëggee dimbali rek moo tax ngeen ñu yaatal ci liggéey bi ndax sunu ñëw fi yokku ci waaye wàññiwu ci yaakaar naa bu ñu fi ñëwee mu jàkk bu ñu fi ñëwutil mu jàkk kon yaakaar naa bëgguñoo ñoo dimbali képp moo tax ngeen woo ñu fi xanaa di sant mbokki taale bi yi nga xam ne sëriñ bi dogal na ne ñoom laa àndal liggéey bi tey di leen soññiwaat di leen wax ne mënuñoo am lu gën a kawe liggéeyal sëriñ Touba ndax sunu sang ba sëriñ Saliou naam moo sos lii yaakaar naa bëgguñoo ñoo dimbali moo tax mu téye ñu ba tey mu ñu yebal ci seen jëmm yi ñu ñëw di ànd ak liggéey bi kon di di leen soññi di leen xamal ne liggéey bi kat kenn wurut xaar sax ñu lay yee naan la jugal dem ci guddi gi nga ko waree def yaakaar naa waroo tali nelaw ndax ngërëm la nga cee dëppool kon ñu ngi leen di soññiwaat di leen wax ne nañ ko def yitte bii di ñëw nañu fexe ba saa su ne mbooloo dafi teew moo xam ne nii bu ñu ñëwee balay 9 heures ñu jógee fii soobee sëriñ bi jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi siyaar mbokk yépp rek di jégalu bu baax a baax ci kàddu yi mu mel nekk yàlla daa dogal ñu joxuñu ko rek waaye yelloo wuñ ko sax. waaye nag ndigal moom bu xasee jóg rek ñun moomatuñ dara kon nag ñoo ngi sant mbooleem waa daairatu muqaddimatul xidma ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw nañ ko ci jumaa yi Tuubaa ak mbooleem lu dul jumaa ji sax xanaa di soññ suñ bopp bu baax di soññ mbooleem ñi nga xamante ni ñoom lañ bokkal daara yi Wakana Haqqan ci jëwrin sëriñ ma sàmba Diop jiite ko mu mel nekk ni yàgg nañoo liggéey ak waa muqaddimatul xidma ci yu bëree bëri yuy xew ci biir Touba gi waaye nag li ëpp solo rek mooy ñu xam li ñu tax a jóg lu mu doon li ñu tax a jóg mooy lan mooy ngërëmal sëriñ bi te ngërëmal sëriñ bi it ak yaafus mayewu ko fawu ñu xam li ñu tax a jóg lu mu doon ngir ñu am ngërëmal sëriñ bi ngërëmal nit it boo koy wut dangay dàq ca la nga xamante ne nii moom la bëgg ngir nga am ngërëmam kon nag mbir mi yomb na lool soññee bi mooy nañ gën a góorgóorluwaat bu baax a baax mbir mi du pas-pas bi du du ci jumaa ji dong fuñ man di nekk rek nañ xam ne ñii taalibe Sëriñ Tuubaa lañ loola ba nay doon lu ñuy wax rek muy doon lu ñuy jëf ba bu fuñ ñu gis rek xam ne taalibe Sëriñ Tuubaa la maanaam laajte kii lu mu doon ñu ne kii kat taalibe Sëriñ Tuubaa la ndax lan ay jëfam ay waxinam ay doxinam loolu day lu am solo. ñu soññaat suñ bopp ci liggéeyub jumaa ji it mu mel ne que ginnaaw yàlla daa dogal ñu ñii ñun lañ boole dibeer ji ñu fexe ba bañ a riiroo ci dara maanaam di waxtaanee li nga xamante ni ñoo ko bokk ndax dana yombal liggéey bi euh, buñ ko waxtaanee xool ni nga xamante nii buñ ko taxawee niñ ko bëggee dana dana dëppook ni ko waa daara Muxaddamatul ma bëggee bu ko defee lépp daal di mat te danañ ko amee ci nam bëggee mooy ñu ñuy diisoo di ci waxtaan xool nuñ koy defee ba nga xamante ne nii kenn du ci amu gaañu gaañu ba noppi kenn it bañ cee gis sa bopp ñu xam li ñu yëkkati mooy sëriñ bi rek ñu yëkkati bu ci kenn gis sa bopp bu ñëpp buñ xoolee sëriñ bi rek kenn du gis sa bopp kon nag nañ xool bu baax a baax ni nga xamante ne nii noonu la ñuy àndee ngir liggéey ko ci nam gën a rafeta kon nag ñoo ngi ciy soññ suñ bopp ñun waa daara Wakana Haqqan di ci soññ mbooleem yeneen daara yiñ bokkal liggéeyu dibeer bi yëpp waaw nañ góorgóorluwaat bu baax a baax buñ dikkee fii ñu ñu ñu xool niñ fii nekkee comme ni ko sëriñ bi waxee am na solo lool mooy teggin yi ak ak ak worma ji nañ ko bàyyi xel bu baax a baax muy ci góor yàlla yi muy ci soxna yi ndax dafa am solo teggin ak yar dafa am solo ci nit nañ ci bàyyi xel bu ñu duggatee ci jumaa ji muy ci waxtaan yeeg waxtaan yi amut solo ñu di ko suuf ñu di ko néewal waaw bu bu mënee ñàkk sax moo gën waaw ñu ñu ñuy waxtaanee lu am solo luy doxal liggéey bi wala nangam ak nangam te yu ci bëree bëri ñu di ko denc waaw warut feneen sax waxantuma la fii. waaw kon nag ñu ngi soññ ñëpp tey baalu xaq ñëpp di santaat bu baax a baax di ñaan rek ñu daje ci ngërëmul Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf kàddu yi am na solo ëppoon naa bañ a yëkkati ñu leen sant bu baax sëñ Ablaye jërëjëf sëñ euh, waa kay waa kay jërëjëf sëñ Sadou bisimilah.